on vous on vous surnomme Mimi Mimi bi fan la fan la jóge <laughs> loolu loolu sori na de euh, maa ngi la doon wax ne su ma su may wayjur ña nga woon euh, France pour yeggali seen jàng. Mhm. surtout sam pap euh, boobu moom commencé am na njaboo am am am njaboot. Mhm. parce que commencé na exercer comme médecin africain ensuite indépendance am mu dem pour nekk médecin au sens universel du terme. sa fekk suma sama sama sama wayjur bu jigéen. déjà amoon na ñetti bant voilà donc moom comme foofa dafa metti woon nangam nangam fii la ñëwee donc ce qui fekk dafa jóge France man ma juddu si Dakar. d'accord ñu bàyyi sama ñaari mag foofa ak sama mais comme da daan dem di jàng ak liggéey ñu denkaane leen ci ay liñ naan nourrice tubaab. de temps mhm. sama yaay voilà yegg si ak liir bi waaw donc bi ma ganesee àdduna rek ñu woote. Euh, foofu ci xale yi euh, voilà mais tubaab bi ne leen ah c'est am ngeen rak euh, Aminata la lañ wax ne la tudd mais loolu c'est trop compliqué du ngeen ko mën a du ngeen ko retenir wax leen mimi rek. ah c'est la <laughs> nourrice noonu laa importé. loolu sax ki ñu ma tuddee. di mhm. sama maam Aminata Aminata Diène. parce que dama am aussi côté côté lébu. Euh, mooy ki jur ki jur sama yaay kooku loolu nag da ko da ko kaas ba sonn mm. euh, daf ko kaas a kaas ba sonn waaye noonu rek après ama muy law ba dem le surnom est parti voilà waaw mais Aminata Touré laa tudd alors